jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bi ñu leen di yoo dalalaat leen ak jàmm ci seen ay actualité du jour des kay door nag ak jëyee ja xew foofee ca diwaanu Plan Jaxaay kii di wuyoo nag ci turu fàllu mbay nekk ab ndaw ay atam war a toll ci ñaar fukk ak benn moom dañ ko fa jël bakkenam eh, ci rekk benn xeex buñ doon xeex lépp nag la ko waral eh, mi ngi aaju ci benn xale bu jigéen bu mu doon génnal ak mbirum firange waral moom Fallou Mbaye tournevis ci li ñu xam ne ci ay xibaar ñeneen ñi di wax itam ni paaka eh, moom lañu ko jam rek ci baat ba mu daadee mujj ñàkk bakkenam moom fàllu mbay nag daf doon génn nag benn xale bi jigéen foofee ca diwaanu jaxaay euh, waaye boobu la génn neexul woon benn yoon yeneen xale yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ca koñ ba waral rek ñu ni dañu koy rek tendre piège ci naka noonu nit niki àjjuma bi ñu génn moom fàllu ginnaaw bi mu demee rek seeti ab corom. gannaaw ba mu génnee di taal moto di dem ci lañ ko taal di tàppaas xeex nag ci biir boobu la xeex nag moom Fallou mbay ci lañ ko jam benn tournevis ci baat bi naka noonee rek ci la sàlloo deretam ba mujjee ñàkk bakkenam ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo def jëf ji wax nañ ni Malika lañ dëkk te daanaka police identifié na leen ba noppi waaye ñoom ñëpp rek ba ñu defee jëf ji dañoo mujjee rek daw rëcc fi mu ne nii ubbi nañ ci ab enquête ngir rek daal leen di teg loxo ca diwaanu Kër Massar foofee nag benn pa anniversaire boo xamante ni moom ma fa doon am moom la ay ndaw jug ngir tas ko boobule anniversaire la ñu xam ne ci ay xibaar boroom ñaari tur yi ñoom ñoo ko organisé woon foofee ca quartier ba. yëf yi nag mi ngi tàmbalee ci 31 juillet bi ñu génn foofee ca diwaanu Kër Massar ginnaaw ba rek xale dëkkee ca koñ ba dégg ni dafa am anniversaire bu boroom ñaari tur yi euh, jógee rek ci gox goxaat yu Sénégal yëpp di organiser ñoom ci la ñu ñëw ba ñu ñëwee sax wax nañ ne nag fekk nañu fa ay bin bin ak yu ni mel euh, yoo xamante ni ñoom dañu ko doon rek euh, jëfandikoo ci noonee la ñu mer daal di rek tas boobu lekk anniversaire gendarmerie Kër Massar itam ñu daal di dem alerter ko laata moo ñëw ca bërëb ya ngir génne rek ñëpp ña fa nekkoon donte sax jàpp ñu ñooñu nga xamante ni wax nañ ay borom ñaari tur yi lañ bi ñu leen teewee ca brigade ba ba xaaji guddi jot dañ leen a bàyyi ñu daal dee demaat yëf yi nag eh, yemu fa ndax ni ki samedi gi ñu génn eh, barki Demba Ndiaye eh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yooyu ñëw fekkoon fa borom ñaari tur yi duma leen ba ñuy bëgg dee ñoom dañ leen indil ay convocation daal di leen yóbbu foofee ca gendarmerie ba loole nag metti loolu ña yeewoo ca diwaanu Kër Massar ñu ñëwoon sax di leen soutenir taxaw foofee ca buntu gendarmerie ba fi mu ne nii nag mujj nañ leen a sax bàyyi ñu daal dee dellu ci seen ay njaboot foofee nag ca unité 10 ba euh, mujj nañ fa sax lancé benn pétition ngir rek ñooñee ñu duppee borom ñaari tur yi nga xam ni sax nee nañ dañuy faral di organiser ay tànnibeer ak i sabar nañu génn rek ca koñ ba daal di leen yi abal kii diw yoo ci tuuru Andiaye nag dëkk foofee ca cité imbécile ca Yaraax nekk sax marchand ambulant moom marié na ba am ñaari doom jamono ji nag dañu ko placé su mandat de dépôt bokk na ci liñ koy toppee menace de mort ak détention illégale d'arme blanche itam ñu ngi koy toppee rek attentat à la vie d'autrui moom nag deful lenn lu dul tegoon ay gëtam ci jabaru jàmbur muy jabaru xaritam sax tudd i Diop nekk ab tailleur kookee nag moom moo ko rek euh, porté plainte ba mu mujjee dem rek euh, ci yoon ginnaaw nag ba soxna kii di i Diop nemmeeku ni rek euh, moom mi daf ko topp di ko def ay avance te mu xam ne jabaru jàmbur la ci la woon nag boroom këram nga xam ni Kolda la nekkoon daal di ko koy yéggee lépp moom mii di i Diop nekk ab tailleur nee na ba ko soxnaam waxee nag lépp li nga xamante ni xaritam bi mi ngi koy def ca siyaasa ci la ñibbi si cité foofe foofee ca Dakar ngir dem rek rek la yëf ya jubal dem ci këram ngir rek waxtaan ak moom ni ko na yemale ay tànkam ci kii di euh, soxna euh, nee na nag deful leen lu dul daal di koy saaga laataa moo génne benn peu coupe coupe di bëgg a jël bakkenam euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee seen ba ñoom ñoo ko mujjee tee ca ëllëg sa nee na nag Andiaye deful leen lu dul ñëw ca kantinam ba nga xamante ni foofu lay jaayee gannaaw ba muy nekk di ndekki ci la ñëw indaale li nga xamante ni moo di ab sémmiñ di bëgg dalaat ci e, kawam ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkoon ca boutique ba ñoom ñoo mujjee àtte gannaaw ba mu demee nag porté ko moom Andiaye ba ñu ko convoqué e, li nga xamante ni moom lañ koy tuumaal xaaj ba rek la ca nangu la ca des nee na mësul yëkkati rek lii di sémmiñ di ko jéem a dóor xaritam bi di i lu ci mënti am jamono ji moom placé nañ ko en garde à kii di Aïda Samb nekk nag ab woykat fii ci Sénégal bu ñëpp ràññee nekk sët ci Samba Jabare Samb euh, ni ki démb nag moom Aïda Samb daal dinay am jëkkër fi mu ne nii nag ab ñetteel la euh, ginnaaw rek bi mu dundee ay jafe-jafe yu metti jëm ci ñàkk ay waajuram euh, ci espace su un mois ni ki démb nag lañ doon célébrer mariage am ak benn homme d'affaires gambien moom Aïda Samb nag yëf yi mi ngi ko célébrer en grande pompe ak yeneen artistes yu nekk fii ci diwaanu Sénégal daal di def ay sañse itam baatre xaalis bu bëree bari euh, ginnaaw sax bi ñu ko laajee rek ci li nga xamante ni moom mooy position ñetteel bi mu doon moom Aïda Samb nee na nag wujjee bokk jëkkër la rek ba tax na rek demu fa pour di defante waaye rek dafa fas yéene toog sëy sëyam comme ni mu waree daal di itam jàpp ñaar ji nga xamante ni moom la fa fekk ni ay magam keneen ku dégg alxayri itam mooy eh, Jami Gueye nekk nag ci série boobee di sama wujju tubaab la eh, moom ki nga xamante ni moo di Medoune Diouf nekk sax ab patron ndax moom moom moom maison de production bii di Mprod eh, moom itam moom moo ko takk yëf yi ñu ngi ko célébré itam ni ki démb ci dimanche bi ñu leen di souhaité reménage fële ca diwaanu Espagne nag benn doomu Sénégal bu nekk foofe moom la ñu jamono ji daal di koy tëj li ko waral dafa abandonné yi nga xamante ñoom ñooy ay doomam te ñu nekk mineur moom moom moomee sax ay atam mi ngi toll ci 44 ans jamono ji nag mu ngi ci ginnaawu kaso yi deful leen lu dul abandonné ñaari doomam yoo xamante ni mineur lañ kenn ki atam mi ngi tollu ci 17 ans ki ci des ay atam toll ci an ans foofee ca aéroport ba moom la leen abandonné ñoom ñaar nag seenub yaay ab camerounaise la sax ci li ñu xamle ci ay xibaar. ñaari tuut tànk yi nag ñu ngi jóge ba ci réew mu France dem foofee ca diwaanu Espagne ngir seeti fa seen papa ba ñu egsee ca aéroport ba nag ñoom dañoo daal di koy rek woo téléphone ngir mu ñëw jël si leen waaye dafa lànk ba tëdd ci suuf bi ñu insisté ba sonn rek wuyuw leen ci la ñu jëlee bus taari dem ca kër ga ba ñu fa yeggee nag papa ji def ni leen du ngeen dugg benn yoon sama kër bugguma leen dem leen seen yoon daal di rek frappé bunt bi dem bàyyi leen fa ci naka noonee nag ci la xale yi daal di dem ca commissariat de police bi leen gën a jigee daal di fay raconté li ñu dund police ci la saisir ci dossier bi dem seen kër papa daal di koy interroger laata rek ñu ko arrêté jëmale ci délit policier sax li nga xamante ne moom moo ko def ni yow ko benn yoon ndax daf ne leen rek ñi bëgguma leen bëgguma ñu ñëw itam sama kër bu leen neexee nag ngeen tëj ma kaso waaye ñoom nañu dem seen yoon ñuy xam ne ci ay xibaar ni moom moomee boo moytuwul lu toll ci ñaari atu kaso dinañ ko tëj ràpp ndax rek délit bi mu def di abandon de mineur ci réew mu mel ni euh, Espagne bu ñu jugee ca Espagne foofee ca Italie itam benn doomu Sénégal moom lañ xamle ci ay xibaar la benn chauffeur bu màndi woon daal di koy fël projeté ko si ay plusieurs mètres ba mu mujjee ñàkk bakkenam moom mu ngi wuyoo ci turu Andiaye nekk nag benn émigré sénégalais bu yeewoo foofee ca Italie benn pa dawalkat boo xamante ni rek 23 ans képp la am ci ay at moom sax dafa màndi woon ndax bi ñu defee test dal ko d'alcoolémie bi ci moom dafa positif euh, moom nag daal nay fel doomu Sénégal bi ba mu mujjee ñàkk bakkanam euh, jamono ji nag mi ngi ci loxol yoon ñu daal dee tee kii di njabootuk Andiaye nag di ñaan rekk yoon daal dee def liggéeyam ndax seen doom jooju ñu ñàkk euh, daan dooleem rek moo ko taxoon a jug rax si dolli itam xale bu ndaw la boo xamante ni rek amoon na avenir am ci kanamam. ca diwaanu Mbàkke nag benn borom kër eh, ay atam toll ci rek juróom fukk ak juróom benn moom la ñu jàpp ak lii di drogue foofee ca diwaanu Mbàkke eh, moom sax nag bi mu génnee prison ak léegi yàggul mason bi di wuyoo ci turu aussi eh, dafa mel ni rek leçon bi moom mokkalagu ko ba tey ginnaaw rek bi ñu ko njëkkee jàpp ak lu toll ci juróom-ñeenti cornet cannabis ci at mi ñu nekk euh, ñi ko defoon sax mooy policier bu commissariat urbain bu Mbàkke moom gannaaw rek bi mu purgé ab penam moom mi nga xamante ni nag am na lu toll ci juróomi bant dafa rekk daal di dellu euh, def jëf ji nga xamante ni moo taxoon ñu tee ko ndax bi la yoon dañ koo fekk mu yor 19 cornet yamba yoo xamante ni rek euh, bi ay 20 heures di jotee ñii nga xamante ni ñooy élément commissaire Ibrahima jàllo doon def patrouille foofee ca rond point total ba euh, diggante Touba ak Mbacké ñoom ñoo ko rek jàpp ginnaaw bi mu jàkkaarloo ak ñoom. Euh, moom sax da doon jéem a rek rëcc di daw waaye policier dañu ko neutraliser ginnaaw bi ñu defee fouille corporelle ci moom euh, ci la ñu gis rek 19 cornet yamba yooye moom ba ñu ko yóbboo ca commissariat ba nag wax na ni sax lii ñu ko fekk mu yor moom moo ko moom waaye rek nee na jaay ko itam du trafiquant ci li nga xamante ni mooy yamba bi waaye utilisation personnelle la koy doyee maanaam moom moo koy jëfandikoo jamono ji nag daal di nañ koy defee rewaat jëmale ci possession de chanvre indien itam sous mandat de dépôt te bu amul chance lu bari rek peine bu mag a mag moo koy xaar bi la yoon. ca diwaanu Saint-Louis nag niki démb 17 migrants yoo xam ni dañ doon bëgg dem foofe ca diwaanu Espagne bëgg a def Barça wala Barça ak ñoom la ñu teg loxo ginnaaw bi ñu jàppee seenu ak gaal ñoom nag. xam xamle nañ ci ay xibaar ku nekk ci ñoom génne nga lu toll ci trois cent mille jàpp quatre cent mille franc ci ay koppar euh, ngir rekk daal di def voyage boobee policier itam dal di nañuy rek euh, teg loxo ay matériel yoo xamante ni doon nañ ko soxla ci boobule voyage. ki nga xamante ne nag moom moo jiite boobule opération nga xam ni moo leen doon laaj xaalis bi ngir yóbbu leen foofee ca diwaanu Espagne di wuyoo ci turu Bee Jaw am 37 ans moom mi ngi dëkk sax foofee ca quartier Guet Ndar ca Saint-Louis jamono ji moom itam teg na nañ ko loxo placé ko en garde à vue jëmale ci trafic de migrants. kii di Mamadou Diop ñu gën koo xam ci Diop ISEG mu mel ni nag coow noppeegu ko topp euh, fi ne nii nag buñu ñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos tribunal du commerce bi daf koo daan euh, ngir mu fay rek société bi di Segbefia lu toll ci 10 million ci suñu ay koppar yamu ca sax tribunal bi dafa prononcé résiliation jëm ci baay bi nga xamante ni moo jëmoon ci seen euh, contrat ba pare daal di koy ordonné expulsion bërëb yi nga xamante ne ni école bii di ISEC foofu la nekk ca diwaanu Sacré-Cœur 1 mbokk internet fi la ñu yem ak yéen ci seen ay actualité du jour li leen jaajëfal bu baax a baax saa su nekk dig daje bi ëllëg lay doon ci yeneen xibaar